abdul ahad taqdimuhu jamula waxtasahu llahu bilfadli allazi kamula askuru sukra allazina saribu min asbi walil jinaani xuribu asalaamaaleykum mbokki taalibe yi noo ngi fii ci pàkk bu sel kër gu tedd ko faj ay soxla ko far ay rangooñ ku xettali jaam ko ku sagal Serigne Touba kooku mooy kan mooy Cheikh Abdoulaye Lahad kenn du ko fàtte waaye doomam ju tedd ji Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahad jël na ndigal fa ko daa jële ci ku mu ko jëlee Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général ku lu murit Serigne ak doxam ak bëggam ak dalam lépp Cheikh Mouhamadul Mountakha la moo tax tey Serigne Moustapha Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Laat rakkam ju tedd ji toogoon ko ci jotaay bi ànd ak rakkam yu sell yi ak njaboot gi ak sët yi ak turandoo yi ak bokk yi xam naa bi Cheikh Abdou kenn du ko fàttee ngir la ci sëriñ Touba waxoon keroog ba mu ganee jamono moo tax bi Cheikh Abdou Lahat koo dajal laaj kan la la 14 mai la di bisu dimanche di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor yi noo ngi nii toog war a waxtaan ak yéen la 14 boobu ca Italie daañu ko fa def de ca Brescia waaye sëñ Moustapha doomi sëriñ Ciidi mu Cheikh Abdoulaat moo fay ne waaye ca Angleterre sëriñ Muntaxa moom sëñ Moustapha mi jiite jotaay bi doomam ju baax ji moo fay ne waaye wax na ni ci turu sëriñ di kër sëriñ Touba yi ci biir yi ci bitim réew yëpp mën nañ ko faa def ndax Cheikh Abdoulaat daj na addina kapp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ci turu sëriñ ci lañu waxe ñu ngi nuyu bokk bi ñu ngi mbokk bi suñu bi nga xam ñoo ko bokk di ko nag ki nekk ci bopp yoonu murid bi muy sëñ Muntaxa ki nekk ci bopp réew muy Macky Sall ak ministre premier ministre am ak mboolem ah yëpp sëñ si nee na mi ngi leen ko yëgal bu loolu jàllee nag ñu wax sabos màggal gi sëñ bi nee na yëpp yëf rek moo waral màggal gi fàttaliku akuk cant akuk tëbb ngir sàkku barke muy azikru wal sukra wal istimdaad fàttaliku dafa am njëriñ ndax suñu borom moo ne wa sakina si karatan sol moom i waxaat ne inna faati sikra say sakru ma yaxsha yonte bi sallallahu alayhi wax ni xinda sikri saalihiina tansilu rahma te ku ne Sëñ Abdu ci saalihiina la bokk cant gi tam ku koy def koy dangaa bëgg ndolent sëñ si di yéen ñëpp ak ndolent ak dolli ko ndax suñu borom a wax ni in sakartum la azidannakum ku sant mu dool la kon nag moo tax ñu sant sëñ bi ngir yéen ñëpp ndolent cant nag duy wax jëf lay doon ndax suñu borom di wax ne ihmadu li aali daawuda aali daawuda sukran kon képp ku sëñ laa dem bu daan sant day jëf day màggal ku ne xam ne di daan jëf poosam du ko fekke ay magasin du ko fekke kon nag du ku ko yaakaar waaye ku di gilit wala ku di sénégalais sa loxo war na caa dem ba bis ba jag li tool nag mooy sàkku barke al barakatu lil mutabarrikina na ku ne daa war a sàkku barke te ku ne xam ne ni fii barke nga fi ndax léppam da koo jox sëñ Tuubaa te barke sëñ laa leer na ko ba tàyyi kon nag woote bii ñu ngi leeral barke ngir ñëpp am ko te ñëpp sàkko te xam ne ko fa sàkko da nga ko am incha allah barkeeg wërsëg dañoo niroo te bokkuñu wërsëg day def jël nga mën koo xool gis ko mën koo làmb waaye benn mu jiit la wala nga jiitu ko dee bàyyi ko wala mu dem bala ngaa dem bàyyi la barke nag doo ko xool gis ko doo ko làmb daj ko mën ngaa tëdd ba guddi soxla million dikkal nga làmb sa bopp doo dërëm waaye boo xëyee soxla sa faju te boo demee ba deel sa la barke bi daan pàcc digg bi jiit la ci bàmmeel bi di seen njaboot loo tax ñuy woote màggal di ko yéene ñëpp di leen ko sàkkul ci turu sëñ Sidi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ah, kon ñu ngi yëg suñu kàddu yi ci turu sëñ Moussa mi fi toog gannaaw ci ki fi nekk sëñ Touba ci bis bi eh, wolof nag dañoo wax ne nag ku wàllu mburu da nga tudd dëkk bi maanaam ku woon ku woon ni dana yell nga wax ne la nga di doyee solo si nag mooy ni ko sëñ Amsatu waxee léegi muy fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad muy loo xam ni eh, dana yell ci bokk yi ñu fàttaliku ko dana yell ci bokki taalibe yi ñu fàttaliku ko dana yell ci bokki jullit yi ñu fàttaliku ko dana yell ci ñu dul ñoom it ci eh, dëkkandoo yu réew mi ñu fàttaliku ndax lan diggam ak bokk yi nga xam ne mooy ñoom ñoom ñooy moom rafetoo na seen digganteem ak ñoom ci façon boo xam ni da daa wax ni ne man de néewuma duma juum waaye bu moo juumee ñu bari juum mbooloo juum loolu nag diisoo ko daa waral ak lañ seq te ñu ko seddoo muy bokk ci wala lañ seq moo tax mu daa doxee noonee kon ñooñu am nañ cër ci moom bu réeree ndax nawlonte googu ba jël seen mooy ñi nga xam ne ñooy dong yi di bokki taalibe yi wax na fii nii ñëw gi ñëw ci man di torox mel ni dañu leen doy doy sewu leen doy du leen ñaan gu nangu ñaan dafa nangu rek te ñaan mu nangoo sonal borom waaye yéenay waa kër gi xam nañu yéenay waa kër gi bu ngeen fi nekkuloon kenn fi jaar loolu kon yaa fi nekk doy na diggante sag sëriñ akub taalibe ba ca des mooy bokk lislaam yi nga xam ne bokk jullit yi nga xam ni wax na leen fii ni seenu fay day man dama ko amul yàlla mi fay laa leen dénk sama fay ndax lépp lu ma mos a yëkk ci tool lislaam bi jaare ko ci sëñ Tuubaa def ngeen seen ñaq ak seen jom ba ànd ko ba mu ne coleet ñu ba mu sotti te lislaam rek a tax al uxwal islaamiya kon ñooñu tam uma seen fay ña ca des muy bokk muy dëkkandoo ñi nga xam ne dañoo dëkk ak ñoom réew mi te bokkuñ ci ñii ak dëkkandoo rafet def ni ko lislaam sandaa defoon na ko seen digg ak ñoom bañ jox ko war mu ci réew réew mm-hmm. kon kooku mooy Cheikh Abdou kon ñëpp yàlla na ci ñoom ñu fàttali ko tey rek yàlla rek tax la ca des nag fa muy daaneel samay kàddu mooy euh, wax nañ ko léegi mooy ñi ci bitim réew ñëpp ñoo ndax bitim réew ñu ci bari euh, ñii dimanche la ñuy la ñuy am jotu def dayre ñii yeneen bis ku nekk bis ba nga am jot rek ca ngay def dayre sëñ bi jox na ndigal ci ñoom ñu ku ci nekk waxtu ba ngay def dayre euh, nga def ko ren nag comme que dafa tolleeg dimanche loolu mooy ndigal tey sëñ bi kat amoon na cër ci ñoom ndax bari na fooy dégg ñaan tuubaa nangam Touba nangam te Cheikh Abdou Lahad la jaare moo leen mayu fit mhm. may leen doole mhm. ba seenu taalibe gën a dëgër ñu ñu koy defee ci réew mi ba ñëpp naw leen fonk leen kon ñoom itam seen cër la fa ci Italie nag ci Pontefico moom sëñ bi wax na ndigal comme ni nga ko waxee léegi mhm. sëñ Moustapha doomam moo moo fay moo fay moo ko fay jiite kon ñi ngi ñaan ñëpp ñu ñu ànd kooku moom def def ko nañ ko daa defee ah te it eh, ñaan suñu borom dëpp li ñu teeg eh, ngërëmam ngërëmul ki ñu koy defal ci jëm ngir ngir Cheikh Ahmadou Bamba. ziarab mboolem turandoo woo xam ne tudde nañ leen si Abdou Lahad ak bokki taalibe yi yëpp ñu àggalal ñu ziara boobu ak yeesal sunu pas-pas boobu ak yeesal sunu njëbal googu ci sëriñ Seydi moom Cheikh Abdou mu di xalifaam di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te amul wér barki si Abdoulaye waaye juróom ba barki sëñ Tuubaa baayam ba mel ne li ñu tax a jóg tey fii te ñëw ci barab bu tedd bii te boroom daan fi toog lu bari yàlla taw feex la yow mii toog itam euh, fa tabaarakallaahu lu ci nga fekke ko kon bu ñu bis bi taxee di daje fii di ci wax ci bis boo xam ne Serigne tubaa mii lépp tey waajuram moo ci waxoon lam ca wax ñaan ca lam ca ñaan kon day mel ne loola yett war na ci ñépp képp xamoon si Abdou Lahad ndax wax jooja ak ñaan googa yett ya mooy lenn mooy ñëw ci ak jëf ci ak ñaan ci mhm. ndax Sëñ Tuubaa jëfoon na ca waxoon na ca ñaanoon na ca ku bëgg na tëbblu ci ñaan nga dangay boole ñett yi moom nag mënu sutu koo mënu su koo wooteel te waxoo ci moom dara wala boog man mënuma ko ndax nee na ku yokkul yaa wàññi bi mu yokk jumaa ji daf ne bu ma ko yokkul lu ma fiy def ndax ku yokkul yaa wàññi foofa la newoon daana wax ne tam ne képp ku def la la war te mu wóor ne lii yow la war te nga war koo def wàcc di yombut waaye fokk ñu foogale ne wàcc nga féeg nag defoo la la war mënoo fexe bañ foog na wàcc nga te wàcc yombut kon nokk bi nga xamee nag sunu sëriñ bii ci biir képp ku ñëw fii ci barab bii te daan fi ñëw yooye yaar moom yàlla ak bàyyam dimbali na ko ci ndax daana wax ne day ku fi mas a jóge ku ne fa nga nekkoon doon fa jaamu yàlla di fa liggéeyal yàlla ak koo mën a doon boo yàggee bar sàq dana ràpp ñooy donn ya nag bu ñu yéesa laatut ràpp ga day sar fii nag daa yees ràpputoon jaaraamaam moom ak i rakkam loolu sëriñ bi ñu koy ñàkk wax ndax ku fekke te xam tuuti ñi fekkewul wala xamuñ wala ña xamoon nga wa fàttali leen wàññiwul dara ñu bokk xam ne kii ñu wooteel euh, moom day daa wutu woon sëriñ Tuubaa ci njaboot gi wuutu sëriñ Touba ci taalibe yi wuutu Serigne Touba ci jullit yëpp wuutu sëriñ Touba ci réew mépp kon kenn ku nekk yëg nga bu baax a baax taxawaay bu mag mat sëkk bi nga xam ne amoon na ko ci yow ci ñi ma wax kon nag nañu ko delloo njukkal jaarale ko ci njabootam gi ñu fi ci njiital Serigne Sidi ak i rakam nañu suñu Abdou jaral dagg suñu yitte ñun ñëpp ñu maase ñëw Touba. ànd ak sëriñ Sidi ak rakk yi ak taalib yi ñu bokk fàttaliku ko Abdoul Ahad ñu ko sëñ sama nijaay sëñ Abdoul Ahad waxee léegi. ci siyaare si ko ci ñëw tëbb si si li nga xam ne yàlla jox nag ko kii ñu am nag daa mel ne dañ koo am te xamuñu ko waaye li mu liggéeyal sëriñ Tuubaa waa kaw xaj nañ ci waa suuf xaj nañ ci sant jëf lay doon nañu bàyyi yitte yi ñëw Tuubaa barkeelu ci bis bi ngir fàggu ci ñaare yooyu ñu wax kon nag Euh, commission bi moom lépp li nga xam ne war na ko ci bis ci wàllu yaatal am njàngaleem fàttaliku ko loolu danañ ko def ndax moom kat waxoon na ne waxtaanam yi mu daan def bis jamono dana ñëw lépp lu la jënd balaa lijjanti koor ji dañu caa dellu si kon nag yaakaar naa jamono lëj na baax na nañu fàttaliku bu baax a baax njàngaleem si Abdoul Ahad bu baax a baax ren thème bi ñi ngi ko euh, def mu jëm ci jàmm ak xajoo asalaam wa tasaamux yaakaar naa loolu fi mu toll nii soxla nañ ko baax ku ne gis na Seex Mouhamadou Mountakha waxtaanam foofu la jëm mu jëmee ko ci julli ak ci taalibe bi ak kon loolu jar naa bu baax a baax ah ñu ngi nuyoo ci tur Sëriñ Abdou Lahad Sëriñ nga xam ne ku am taxawaay la ci turandoo yi moom itam ñu ngi fàttali ñëpp ne ah, liggéey boobu ko Sëriñ Siri dénk mu ànd ko ak bokki taalibe na ko ñëpp bàyyi xel bu baax a baax muy turandoo yoo xam ne dañoo takkatoo laxasaayu liggéey ci ginnaaw Sëriñ Siri képp koo xam ne yittewoo nga sëñ Abdou Lahad bu sëñ Thierno Diop mii na nga ko woo ci numéro bii ñu 77 645 65 93. waaye itam daayira turandoo daayira doomi ndongo yi ñoom itam di Matlabul Fawzayni jiitu sëñ Mamour Diouf ak sëñ Abdou Wahab Ndoy ñoom at mu jot dañuy teeroo màggal gi bisub alxuraan ak ngontum alxuraan ak xasida loolu itam danañ ko amal ñaar fukki fan ci weeru koré yi dëppoo le 11 euh, mai kon ñu ngi ci woo mbokki taaliba yëpp ñu bàyyi ko xel baax te xam ne Sëñ Abdou loolu rek moo doon euh, yitteem muy alxuraan xasida kon guddi màggal gi itam incha allah danañ ko fanaane jàng alxuraan a xasida ak waxtaan ci jëmmam ji tedd ja fàttaliku sëñ Tuubaa kon loolu itam ñu ngi koy bàyyi loo xel mbooleem euh, taalib yi ak jullit yëpp. Euh, am na exposition bu mag boo xam ne commission culturelle bi dana ko amal ci fii ci buntu kër gi ngir képp koo xam ne bëgg ngaa fàttaliku ci sëñ Abdou Lahad dara ci aw dox yi nam ak ci sëriñ ak ci yoon wi boo fa ñëwee incha allah loo fa bëgg xam. bu ñu nee suba la màggal dana ubbi ba bisu màggal gi incha allahu taala kon nag ñu ngi baalu àq ñëpp di jéggulu ñëpp. ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar kilifa yu tedd yi di leen ñaanal yàgg fi ak wér ci jiital sëriñ Sidi Mbacke ci barkeb sëriñ bi di nuyu njaboot képp di wax ci turu sëti sëriñ Abdoul Ahad yëpp di yëgle conférence bi nga xam ne sët yi baaxoo nañu koo amal bu ñu nee ginnaaw suba la màggal mu tolloog la douze. ñu ciy woo mbooleem daayira sët yëpp di ci sàkku seenu teewaay di leen ci ñaanal tawféexi sëriñ bi di ñaan nag bis bii nga xam mooy bisub sëriñ Abdul Ahad ku ne xam ne sëriñ bi dafa waxoon ne am naa ci moom yaakaar te ku ne xam ne ne tasut yaakaaram dëgg la képp ku ci ñëw nag kon yàlla bu sa yaakaar tas bis bi it ñu ngi ciy woo ñëpp di sàkku seenu teewaay di leen ñaanal jàmm ak tawféex ci barkeb sëriñ bi la 14 di bisub dimanche di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori muy bis bi suñu jàmbaar jee feeñoon te bisu Cheikh Abdou Lahad ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbb waaye xam ngeen ni nag président la république premier ministre ministre de l'intérieur ak membre gouvernement bi yëpp sëñ bi yëgal na leen ko opposition bi yëpp it ci la ñu bokk yëgal na ko ñëpp waaye xam ngeen ni ah mairie Sénégal yëpp Cheikh Abdou Lahad ka day mooy maire Touba te kër Cheikh Abdou Lahad la am ak commerçant yi ak transporteur yi bis baa ngoog la 14 la na ñëpp wuy si sëriñ Sidi ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمات